réfléchir au-delà de la personne d'Aminata Touré c'est-à-dire que euh, ñu yam ci loi bi nga xam ne ñi ci plateau bi ñu ci bari jàpp nañ ne sa pertinent quand même. c'est on la personne de Aminata Touré. Njaay nee na. uude lum la wax ci feebaru bëy bi rek. der bi moo tax. je Wolof Njaay nee na. uude lu la wax ci feebaru bëy bi der bi moo tax. je il faut pas qu'on se joue de nous c'est-à-dire yow yaa ko wax léegi tu as parlé d'opportunité ah Aminata Touré elle fait de l'opportunisme politique elle fait même de l'activisme politique pour se faire entendre pour faire partir de l'actualité pour que ñun ñuy toog sax di wax ay wax Aminata Touré quoi coowam bi ak Macky Sall deux jours la Macky def na remaniement changé na gouvernement on en parlait plus mu ñëw indil ñu fii euh, loi et cetera machin c'est-à-dire En parlant même de loi, c'est Aminata Touré qui était là, le sabre de Macky Sall, avec la loi de la CREI. Aminata Touré, dans son CV, Bibo Bourgi dañ ko teg sur une civière au tribunal. Aminata Touré, dans son CV, elle était là pour démanteler des gens du régime. ñu koy wax sax la dame de fer ñun dame bi ñu xam c'est de la douceur. Aminata Touré c'est de l'activisme politique tout simplement si Aminata Touré a été choisi pour moom mu nekk président assemblée nationale du wax c'est comme nga nekk ci benn soos di ci noos di càpp di soos di càpp di soos ba bis bi ñu dindee sa loxo ne la dootoo soos après nga doo ko wax c'est-à-dire il faut pas que ñu nekk fii ay kirib karab xam la moo si am ku fi teg sa loi teguloo ko pour réformer réew mi ku fi teg sa loi da ko teg pour des problème politico politicien personnel wax nga ko léegi su fekkoon indi na proposition de loi ne nañ def appel à candidature ñu ne nañu xool su boobaa yenn société publique yi ki ko war a jiite war ñu xool ci waaso wala ci mbokk dañu war a xool ci profil ci compétence su boobaa li ñu dal ci post bii duñu dal su boobaa je dirais ah bravo mais parce que yow tey Sénégal dafa neex quoi da ngay nekk ak nit fukki at ak juróom-ñeent fukki at ngeen di nguuru tey àndatu leen suba. mu mel ni mosoo ànd ak moom nga ñëw samp bëri na fi ah da ngay nekk directeur buñ la wàccee tey décret bi la fi tegoon bu dindee tey deux jours nga def conférence de presse. mer ngay boobu. c'est ça la vérité. et ici buñ ñu mënuñu tàggale initiative ak moom mënul nekk. sama nijaay nga nag sama yaay jëng wey la sant <laughs> deretu jëng wey na bi laa nekk ci man mais dama lay wax les mots qu'il faut Aminata Touré même du point de vue politique. pour man bu loolu dangeen ngeen ko jege doon ko conseillé gam moo doon bu lii amee mu ne tàcc dëggabal bi juróom benn weer si match bi neexee mu doo ko wax sax ñu xam fu mu jëm. c'est ça mais yow en moins de quarante huit heures elle nous a habitué à ça conseil économique social bi ñu ko ko joxee jour bi ñuy jox Idrissa Seck ca ba dem na RFI tiré na elle est dans beneen bi man euh, moi je suis de la famille Talla Mamadou Talla le ministre c'est mon c'est mon c'est mon grand frère Racine c'est mon grand frère toute la famille Talla ñun ñëpp ñun xamuñu sax ay cousin cousin ñun magar parce que ñun loolu lañ xam mais libre à chacun nga nekk ci lu la nekk pour man dafa am foo xam ni sax c'est discriminant Aliou Sall jiin ko loola neex na naan pétrole na guuf pétrole c'est son moo xam te buñ ko waree àtte nañ ko àtte na nekk rakku président ak doomu président laa ci yemale mais bi élection jotee daa dem buuxante dem géejawaay militer à la base ñu fal ko ah waa ji nu mu tudd président san xaw ma ko sax daa demoon daa dem élection à la base donc est-ce que sur le plan électif mën nga koo xañ moom mu bokk beneen bi on a une réalité sénégalaise ñun ay sénégalais lañ bu ñu ko nëbbante même dans nos entreprises là entreprise boo ci dem doom patron bi wala jabaru patron bi bàjjanu patron bi suñu conception ñun si suñu ay jikko sénégalais nee naa la nit sa mbokk ñun loolu lañu loolu waaw mais mais mais loolu loolu aussi. waaw privé public laay wax ñi nekk ci public bi. non moom mënoon nañu waaw dinaa sëñ Saal dinaa ñëw man de. portefeuille laa yor ñëpp laay jox seen wàll dama ne la. waa déglu mais on est dans le mentalité. non mën ni ñuy mën ni ngay juger privé mënoo ko juger public c'est pas possible. waaw mais c'est les mêmes la neexee nga jël sa doom mais lii ñëpp bokk on parle de la res publica la chose publique bokk rek la chose privée. alors oh, sëñ Saliou on le laisse finir. Eh, ah, on le laisse terminer. waaw terminer oh, je peux continuer. waa maa leen koy ñaare ngeen jégal ma ngeen may ma rek ma terminer. parce que démocratie moom ku nekk ak neuf lañ ku nekk am na xalaatam sama xalaat nag sama signature la man. ma ne. on naa fi ma doon waxati dama ne. dans l'esprit du sénégalais bu fekkee déglu nga ma dans l'esprit même di sénégalais loolu la ñu mooñaale loolu la ñu màggaale nit mbokkam loolu loolu la xam demal si sunu mairie yëpp ku fi falu maire da ngay dem chauffeur bi da ngay jël sa doom bàjjan wala sa mbokk parfois sax ñi doon ànd ak yow di xeex wala di la faytal sax fee nga leen di teg c'est dans l'esprit du sénégalais dans l'esprit du ku ñu fi fal ministre suba ñu indi la cinq bongo sa ndeye ko liggéey sa maama ko liggéey mais man li ma déranger dans ça dans ça Aminata Touré elle devrait raser les murs. Hmm. monsieur bu dee yéen koy conseillé il est allé à Yoff pour compétir dans les élections nekk premier ministre ñu envoyé ko comme soldat pour na dem affaiblir Khalifa Sall indi nañ acte trois. Hmm. bu Khalifa Sall jàllulee Aminata Touré waroon fa toog mu dem grave elle a été battue mu jóge fi dem Kaolack. Aminata Touré comme suma jarbaat sama jarbaat màgget maa ngi koy nuyu ma petite màgget la soo ko joxee tàngal. nice bis boo loqatee tàngaay bi nangu eh, ko jox ko beneen. Ah, mais Omar eh, Abdou ko ma a tegloo si contexte bi man sama contexte laa <laughs> tàngal mu koy màcc di ngunaandaat nekk ak Macky Sall ci nguuram ba jour bi nga xamante ni tànnuñu ko mu génn di ñu indil projet de loi boo xamante ni moom yàgg na fee nekk. ubbi ay bëtam proposition Aminata Touré bi Macky Sall di jël rakam Aliou Sall muy dugg ci pétrole bi fan la Aminata Touré nekkoon Aminata Touré bi fi Macky Sall di ñëw di fal gorom Mansour Faye fan la Aminata Touré nekkoon. Aminata Touré bi Macky Sall di toog fii euh, nu mu tudd Yaxam Mbaye naan dynastie Faye Sall fan la Aminata Touré nekkoon il faut qu'on arrête c'est activisme politique Sénégal boo nekkee ci nguur la daganal bis boo demee ci kujje moom ngay araamal boo nekkee ci kujje li ngay araamal boo demee ci nguur toog ci li Sanusi wax moo ma si intéressé moo principe principe bi fa la nekk. Mhm. parce que je booy def dara principe nekk ci yow. te dès le jarul ma nekk ma nekkoon ak président ànduma ak moom. Mhm. déggoo ma ak moom ci népotisme wala clan et puis sax ñu dem dans sa logique. bu ma doon moom na def comme Macky na démissionné. Macky Sall alors euh, très bien Cheikh Oumar Talla Cheikh Oumar Talla Cheikh Oumar bien. alors jàpp doomu jaamur yi tëj leen fii. Cheikh Oumar Cheikh Oumar tëj fi ku ko neex keneen loi bu ko neex xëy ñu am na yeneen préoccupation. alors sénégalais yi yeneen lañ nekk lekk naan faju alors alors monsieur le ministre Aminata Touré sax man laalu ma ne waxu Aminata Touré sax ñun sénégalais yeneen moo leen yitteel quoi ñun yeneen moo ñu yitteel ay Aminata Touré ñaar sëy boo xam ne saa yu tase ngeen juboo bu tase ngeen maa ngi ñëw ci yow Chama vous n'avez plus la parole s'il vous plaît alors ça le Joseph déclaration universelle des droits de l'homme ñoom dañu koy joxe sax comme raison Mélenchon wax ne article 2 alinéa 1 bi lu mu wax mooy euh, amul xeet amul sexe amul religion ku ci nekk bu fekkee sa compétence la war nañoo mën la ko jox donc loi bi jàpp nañ ne elle est anticonstitutionnelle euh, ci bu nu sukkandikoo ci déclaration universelle des droits de ndax noonu nga ko gisee. Euh, xamoon ni ko commencé mooy reposer wu sur le code des obligations civiles et commerciales ni ñu bokk famille ñu bokk lu ñu bokk parti parce que parti politique objectif am mooy yegg ci bopp réew te bu yeggee ci bokk réew mu muy téye pouvoir bi développer une politique mooy solo si ku sa ay mbokk sori ku yor réew wala koo xamante ni si yaa ngi ci parti di ko doxal sa ay mbokk jege la da ngay ñaan yàlla ànd ak ñoom bu la yàlla joxee ndomba tànk gi ngay wër nga xool ñi la ci doy am ci compétence nga jox leen ko looloo taxoon bi mu ko joxee Mansour Faye mi mu coowuloon loolu moo tax bi mu ko joxee Alioune Sall Aminata coowuloon looloo tax bi ñu jëmbalee Ablaye timboo daal di koy tabb fële ca mii mi mu coowuloon kon bu coowee léegi dafay jaaxal nit ñi coow li doo doonoon na gën a baax mu ne ku yor beneen nationalité doo bokk ci gouvernement bi doxal Sénégal da ngeen amoon ab loo mu am nationalité allemande te boobu mun nekkoon fii donc yaakaar naa ni yëf yi bu ñu ko teg ci kii nekkatu fi na puus tey bu jëlee ci tuitam muy layoo li nga xamante ni si bokk na ci li waa ONU di wax jamono bi groupe de travail bu ONU di rendre ni détention bu Karim Wade c'était arbitraire moom elle était la pièce battante bi doon taxaw di jàkkaarloo ñun ñi di wax ni dafa wane ni dañ ko war a. pourquoi vous faites que fa mu ko tibbee rek. entre entre mbirum Karim Euh, créé au moment où Aminata Touré était ministre de la, de la Justice. Euh, cher Omar, vous me laissez terminer ma question. C'est pas pour vous, s'il vous plaît. Alors, au moment où Touré était ministre de la Justice, ak aujourd'hui bi nga xam ne Aminata Touré est députée non inscrite. D'accord xam nga xam nga fi mu jëlee dalil loolu ñuy wax lay lay bi li muy layoo fi mu ko jëlee daal di bokk ci fi mu tibbee ba tax mu indi ko doon lu ñun ñi war a jàpp muy lu waa ONU wax ñoom seen groupe de travail dañu ko ni woon bi ñu jàppee Karim Wade ni ñu ko téewee du dut yoon mu dëgg ci tànkam défendre ni Sénégal réew mu indépendant la réew mu am taxawaay la réew moo xamante ni dafa moom boppam la kon bu jamono demee ba bukki ñële daal di koy mat bu mu fi soppi wax timisu fi bay guddi tànk ku ko bankul tàllal ko nii la demee leneen li nga xamante ni sii nag mooy nii doxal suñu am réew am réew boo ko bëggee tëgg danga koy tëgg ci ni nga xamante ni si sur le plan culturel noonu la ñuy dundee noonu ni ñuy dundee sur le plan culturel mooy ak bokk ak booloo ba tax président Senghor bi ñuy wax suñu devise ñu ni un peuple un but une mhm. foi mhm. il ne faut pas ñuy indi ci biir nguur ni waroo fal sa mbokk war nañu wax ni nun ne sommes dans un royaume newuñ ci nguurug buur mais sa mbokk bu la jegee te jàng li sa mo li keneen jàng am compétence yi politique bi ngay teg gëm ko il faut nga am nit ñu ko gëm ànd ak yow ci biir ñu ko gëm bu ci sa ay mbokk mbokkee am xam-xam bi am njàng mi yoon xañu la nga teg ko kon Aminata bu mu ñu ko indil coow li nga xam ne judd na fi mooy bi ñu nee jël nañ amadu Mame Diop jiital ko coow li judd lépp dañu ni mbokk la xarit la ma Mansour Faye nangam sangam tax tey muy jëmmal loolu Aminata rekk waay na gore dem toog ci wetu Macky Sall mi mu nekk lu ndax nag bu ñu tàmbalee boyal xal yi tàmbalee tàng ku nekk di dem mënta ne ñi fi nekkoon nañu continuer bu leen ñeneen wuutoo que toute personne coupable de quelque chose rende compte ñoo ko fi waxoon noonu la mbir di doxee c'est ma pensée par rapport à cette à cette loi ak ki ko joxe. alors c'est c'est euh, rapidement avant ñu dem ci beneen point par rapport aux interpellations yëpp ci Aminata Touré la jëm oui. Euh, pour dire Euh, j'ai bien admiré son son oui, entraînement. Et, euh, et j'assume Mais, d'accord maa ngi deux choses. non j'ai pas de problème par rapport à ça. Ah, mon cher ami j'ai euh, passe à l'autre point alors mhm. dama bëggoon a wax d'abord ni nga ni nga ni nga ni nga articuler opportunité ak opportunisme je pense quand même que c'est exagéré ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même chose et on ne peut pas les mettre dans le même panier premièrement deuxièmement on ne peut pas imputer à Mimi Touré la CREI tout le monde sait qu'un ministre applique exactement la politique définie par le chef de l'État au Sénégal c'est pas par exemple parce que nit ñi ils veulent lui trouver un mauvais procès qu'on veut lui imputer ce qui s'est passé à la CREI ça quand je pense que c'est pas juste c'est li ci des c'est c'est c'est des discours moralisateurs qui qui n'entrent pas dans le cadre des, du principe que nous avons posé Le débat qui a été posé par Fat Abdou, c'est de dire est-ce que la loi est pertinente, oui ou non La réponse est claire. La loi, est pertinente. Maintenant, comme je dis, dans sa rédaction, dans sa formulation, chacun peut dire on peut améliorer. loolu xam nga wax nga ko ba ba pare. mais mais c'est ça qu'il faut retenir manque de soutien bi parce que aujourd'hui le PDS amaana. non a soutenir. parce que souvent loolu la ñuy teg on ne cherche brandir aussi. parce que euh, parce que euh, kër yi Aminata Touré li et dernièrement je termine. dernièrement euh, ci li nga xam ne moo mujj ci mbirum amnistie bi Aminata Touré wax na ne carrément bu demee assemblée nationale elle ne votera pas cette loi également. bu ñeel wàlluk amnistie pour Karim Wade donc bu leen ko xalaat ci fi nga xam ne moom mooy assemblée nationale entre autres yi nga xam ne xaw ma xaw ma quest par rapport à la loi que propose Aminata Amaana oui ok euh, mais c'est eux qui ont un problème ñun on ne cherche pas à ci ab loi ko a 165 députés qui vont en discuter Donc, euh, certains vont dire on l'amende, certains vont dire on améliore, certains vont dire on vote, d'autres nous diront on, vote pas. Mhm. li am solo mooy population sénégalaise bi apprécier de la pertinence de la loi et de sa mhm. validité. Mhm. Par rapport au PDS, c'est un problème parce que ñoom discuté wul Les ne discutent pas la loi, ils discutent la personne. Mhm, c'est ça le euh, problème. Il faut qu'on arrête de discuter la personne qu'est-ce que la loi ah, mhm. apporter alors, très, bien. et à la, Ahmed. qu'est-ce que la personne veut à travers la loi Mais l'État la c'est la question. Ce n'est pas, pas ce qu'elle veut qui importe, c'est le juge. Ah, ah, non, pour toi. non, mais c'est ça la vérité. Une loi une loi non une loi une loi. parce que ce qu'elle veut c'est à travers la loi avoir une la sympathie. non non une loi une fois qu'elle est proposée et votée son applicabilité exclusivement du juge. alors de la loi à un temps. oui mais attends loolu. loolu perception et son appréciation. parce que la réalité. mais moi la a loi est pertinente oui ou non tu as dit oui.

ce sont nos codes culturels qui freinent le développement et c'est de dire njëriñ loo fekkee loo fekkee alors c'est un blocage et c'est lui qui le disait c'est-à-dire tous nos codes culturels ne sont pas des codes à mettre en valeur il y a des codes culturels qu'il faut bannir c'est la réalité vous ne pouvez pas convoquer des codes culturels parce que c'est votre convenance du moment c'est des codes culturels qui sont obsolètes et qui sont démodés il, y a des codes culturels qu'il faut enlever ñuy ñuy ñuy loo fekkee ça tue l'esprit de sacrifice. dans un alors très très, très bien Ahmed Ahmed très bien. pourquoi vous voulez nous imposer des codes culturels. alors parce que ça vous convient à ce contexte euh, précis. alors ah, ah, alors ah, Amadou oui eh, Amadou. loolu Amadou oui. Mhm. Mhm. d'accord bon man euh, on est d'accord presque tous que il y a une dose de subjectivité dans cette loi par rapport à la personne qui a fait la proposition. Ouais. Franchement, sur, sur, ça, on est, on est, on est d'accord. Mm -hmm. Et le contexte aussi, hein, ajoute. Moi, par exemple, euh, pour euh, embrayer dans ce sens-là, c'est-à-dire mm-hmm. que Aminata Touré dafa waroon xaar bay def programme mu candidat comme présidentiel. c'est ça c'est ça. mu dugal ko ci biir loolu. c'est ça. est-ce que comprendre ba baax c'est-à-dire que mu taxaw sauf que c'est une erreur de com. c'est-à-dire que le moment est mal choisi la oui. erreur de mm-hmm. com la c'est-à-dire que contexte bi moo mm-hmm. c'est-à-dire que fa waroon ba nga xam ne <laughs> s'il le faut sax quel démissionne ah qu'elle quitte le groupe qu'elle euh, jette aux orties que euh, le nu mu tëddee euh, mandat wu député quand même il faut être courageux quand même à un certain moment na dem léegi boo demee nga def sa programme nga ne man lii mooy sama programme alternatif par rapport à ce qui est proposé actuellement et tout le candidats confondus ah bu boobaa nga dugal ko ci biir nga ne man bés bu ma falee président li may njëkk a def mooy dinaa dugal projet de loi boo xam ne boobaa nag dootul tudd proposition de loi donc dinaa dugal projet de loi boo xam ne li nga xam ne moom mooy euh, népotisme euh, tout ce qui concerne les liens familiaux dinaa indi une limitation des des des de l'occupation des fonctions donc et des responsabilités liées en rapport avec les liens familiaux bu boobaa pertinence bi non même ma ñëw bu booba foofu lay ëpp pertinence parce que euh, kenn du ko mën a reprocher ne ko ba nga nekkee ci fële defoo ko parce que bon bàyyi na ñële ak seen yëf mm-hmm. def yëfu boppam parce que fële elle n'était pas la capitaine de, de du du bateau donc elle est <laughs> applique la nu euh, la politique définie par le chef de l'État tout ça c'est des prétextes mais li wër boo amee sa programme bopp boo war a proposer sénégal yi na ko ci dugal ne man dinaa def lii mais dugal ko comme proposition de loi dans un contexte boo xam ne dañ ne yow sa mandat député bi sax da nga ko war a delloo. Mhm. ci principe comprendre nga delloo ko nga nga bërëxal mu mel ni léegi da ngay fayu contre ñi nga xam ne ñoom nga nekkaloon loolu ñun ñëpp xam d'accord nañ ne. vraiment xaw na xaw na xaw na tax suuf mais fi may mhm. daaneel. Fatou Abdou boo ma ko permettre. Mhm. mooy euh, wax bi euh, neex na lool mais dégguma fi. nan lañ war a def ba li nga xam ne mooy ku falu doo fal sa mbokk noonu lañ war a def. Mm-hmm. waxaguñ ko fi. mais il faut changer d'origine. non non dafa ndànk non non non yow li nga wax non non yow li nga wax dégg naa ko c'est éliminer le poste de président la non ça c'est ça c'est l'autre extrême quand même non loolu loolu moom beneen affaire la c'est-à-dire que <laughs> cinquième république mën na am qu'on révise qu'on qu'on qu'on introduise une autre constitution par référendum ñu dugal ci liñ ci war a dugal am mhm. beneen euh, cinquième république je suis d'accord mhm. mais bu boobaa aussi euh, mhm. déjà la réflexion waroon na mën a commencer non ah, non xam nga xam nga xam nga tout ce qui est critique yomb na mhm. ku ci nekk mën nga mais ma mhm. mais man mais man même mhm. non non non non non non non non euh, euh, déglul baal ma wax c'est-à-dire que il faut dañuy critiquer dañ ne la nañ def réforme boo xam ni pouvoir yi président bi nga ci loxoom yi buum bi buum bi ñu wàññi doole président bi assise nationale ma yokkal leen dama ne. les dans les mémoires d'Abdou Diouf ah. président hmm. je mets le doigt sur le curseur dama ne. qu'est-ce que Habib Thiam non non non non dama ne dama ne. comment qu'est-ce qu'on quest doit faire pour que loolu nga xam ne mooy euh, népotisme. Euh, faralaate euh, nu mu tëti lép loo xam ne président koo xam ne parce que loi bi président la ji la ciblé. nañu waxante dëgg président le cible d'abord le président de la république dans ses nominations mhm. d'accord parce que aussi principe bu nga xam ne moom c'est c'est c'est c'est c'est euh, son pouvoir discrétionnaire de nommer aux emplois civils et politiques ça aussi militaire aussi donc loolu dafa am noo xam ne euh, <laughs> dañ ko ko dañ ko ko war a jàppe tu comprends donc loolu yëpp ay réforme lay laaj ay réforme lay laaj man dama bëgg ku d'accordul aussi nga ne parce que ñun ñëpp xam nañ ne népotisme am na buñ ko wékk ci ay affaire suñu mbokk ñun ni sénégalais nii la mel et tout ça non une république c'est une république mhm. tu vois on a nos us et coutumes c'est vrai mhm. mais dafa am république nu muy tëddee léegi nag nan lañ mën a def pour que ces dérives là parce que loolu ay dérives la nga nekk président de la république am na mhm. ay lois yu ñu teg yoo xam ne la mayu la nga nommé say mbokk nu mu la neexee mais may na la nga nommé may na la nga nommé mais mayu la nga nommé nu mu la neexee léegi Euh, euh, accentuer l'appréciation non nu mu la neexee boobu léegi nañ xool nan la ñuy tënkee président bi foofu tout en lui permettant mu mën a nommer mais nu la neexee boobu la ñuy xoolaat mhm. léegi nag man proposition yi foofu laa koy mhm. xool. alors euh, on aura peut-être l'occasion alors dinañu amaat occasion waxaat ci par rapport également aux propositions dañuy wax ci beneen point bi beneen point bi c'est la la balade.